deux semaines. ça veut dire 15 jours 15 jours de garde à vue. de garde à vue 17 jours mais 15 jours de garde à vue est-ce que yoon la. du yon. du yon hmm. mais loo m'en. mais est-ce que c'est durant 15 jours est-ce que ñoom waa waa SU dañoo continuer di la la non non à vrai dire nag deux jours yi. Hmm. ñu ma deux jours ñu la dóor. waaw deux jours yi dañ ma mais yeneen des dóoruñ ah ok d' accord amul enquête. dañuy ñëw rek door ko dañuy ñëw rek dugal ma ma toog fa fa laa nekk fa laa nekk. d' accord sept jours. léegi jour même mandat dépôt. léegi ba la yóbbee tribunal. Mhm. juge bi dóor la mandat dépôt. Mamadou Seck moo ma dóor a dépôt. ban jour la dóor a dépôt. moo ma dóor le vingt huit août le vingt huit août sama a dépôt. MD loolu gars yi la woy MD. MD mooy mandat dépôt mandat dépôt le vingt huit août. maanaam maanaam pour internet dañuy saan MD boo ko déggee mooy mandat dépôt. mooy mandat dépôt. Mhm. sama MD le vingt huit août la.

da amoon vol. nga jógee fa dem kaso. ma dem ma jógee fa dem rëbës. premier jour rëbës. Abdou Vazi mën cee ñëwal le plus rapidement possible. Cheikh. c'est Abdou. Ouais. plutôt que moi. gis naa loolu sama àdduna. Mhm. dem naa fu ne. Mhm. mais li ma gis rëbës amul xar sax du ko dund mënu ko dund. Mhm. nee nga borom fit nga jooyoo. jooyoo pour nit wala jooy pour pour déedéet mais dama tiit naa. Mhm. wax dëgg yàlla. tiit na loolu mu sax boo xamee rek dañ lu garaaw. Mhm. maa ngi dugg repose ay booru ay ay booru dix neuf heures. Mhm. ban chambre. chambre la. dix mètres. chambre personnes. 266 personnes. 10 mètres long. moo mètres de long jël 266 personnes tey C'est émission nu ay dambolo la am. kaw souf genre étagère. genre étagère merci beaucoup. Cheikh. sa premier jour accueil bi bi la waa chambre bi réservé la. avant ma dugg sax si néeg bi. Mm-hmm. bu ma dugg si rëbës tàkk yóbbu si ñu eh, wat suñu ñëw wat ay wat bu ñàkk fayda. da lay <laughs> xuuf <laughs> bu ñàkk fayda. Mm-hmm. je veux dire xuuf ma genre fait yaa ngi dégg. sax c'est inhumain loolu nit li amul. Hmm. parce que vous chambre de dix mètres de long. Wow, mu def deux cent soixante six jour deux cent soixante vas-y. Je suis chambre hmm. pour moi, c'est fini quoi ni ay gënt la nek hmm. li lu réel lu am nit mëna dund

ñu an sa kii bi am na chambre na ma eh toogal nii. Hmm. ma toog mu ne ma fii néeg yaa ngi baa ngi nii. Hmm. boo defee boo defee lii di nekk si jàmm mais boo def lii doo nekk si jàmm. Hmm. Cheikh. bu ma ñëwee xaw ma fa kenn. deux cent soixante-six personnes xaw fa kenn. nit ñi ku nekk sa cas. beneen univers la. waaye yow beneen monde la. Mm-hmm. univers beneen monde la. Mm-hmm. yow mënoo ko imaginer loolu da ngaa lii amul. Mm-hmm. amul nit mënut a dund loolu quoi. yàlla xam na loolu. mu tegal la condition yi. mu tegal ma condition yi. namal toog fële toog fële ah. ma toog fenn jaaxle na nga ah. loo xamul rek xamoo ko jaaxle man kese gis nit ñi environnement bi nu mel mais xam lu gën a neex. buñ neen nii. xam nga li ma lan. dodo. tëdd tëdd. tëdd nelaw tëdd nelaw. comme boo leen tëdd da ngeen tàmbaloo tàccu bu ñu tàccoo rek jeex na. kon yow jur nga demee réeroo. yàlla lekkuma deux jours j'ai pas mangé parce que sama mbir dafa def dama yaakaar damaa lekk ay ay nag yi <laughs> nag ndax suur xam nga boo tiit boo demee ba tiit tiit yi wala loo xamul <laughs> du amati abati man deux jours wallahi lekkuma. léegi tëdd bi nu mu demee. ñu tàppe ngeen tëdd. chambre trois bu ñu tàppee. mu xamul lu xew. gis gars yi rek si kaw daamul ñu tëb di wàcc ci suuf mu ne waaye mu demee nii ñu gën a bëri suuf chef de chambre bi ndeysaan mu baax am di ba ba si kaw fi fi fi nekk fi ñu tëdd léegi mu mun a mun nii yéegaat gars yëpp yéeg ñëkkante la waaw. ñëkkante place. waaw boo yëg boo tollu yëg doo am place. Uh-huh. man xaw ma fa kenn mm-hmm. mais.

am ñoo xam bu ñu saw si biir la ñuy sawee noonu noonu nii mooy paquetage li mooy paquetage lu émergence woon si ginnaaw mooy paquetage lu raw lii sax moo fa nekk xam na kees danga gën am na ku jaaxaan sax ku jaaxaan mais fi amul jaaxaan boo jaaxaan da ngay raag da nga raag ba sonn xeex ba sonn noonu ngay tëddee ba fajar. mais nga benn côté. waaw ba 6 heures du matin. ba 6 heures loo xam ne moo soo ko xam. xam nga man macha allah dama meram loo xam ne xam sa àdduna mosoo xam sa àdduna man tey boo ma sama lal damay jaaxaan lu ma neex tëddee ba tey ñu ne la benn espace boo xam ne moom ma dañ lay suul néew bàmmeel waaw ba billaahi bàmmeel sama tane lii parce que parce que bàmmeel da ngay dee ñu xam ne kii dee na mais dangay ngay fee da ngay dund di nooy ñu def la loolu ñu teg la loolu noonu ba fajar six heures du matin six heures bu ñu appelé ñu am sens mooy ñu ko dugg on sa appel si monsieur Toub bu nekkee si kaw. ñu ñu am sens mais ñu mujj dugg ñi bu ñëwee da ngay toog. da toog waaw. ba bonne heure. ba heure ba heure ba heure kii huit yooyu na neuf heures. Mhm. bu dee da nga am cours euh, euh, da le matin cours le matin parce que rëbës mu ñi bu fekkee di am cours le matin ñu la soir nga am mais tey boo amee cours le matin bu subaa la soir nga am. Ah, dañ koy alterner alterner quoi maanaam tay le matin boo amee cours le matin. le matin. comme tay jeudi tay. jeudi tay boo amee cours le matin. waaw suba ajjuma. vendredi vendredi cours le soir là 2 deux heures temps 3 heures temps. D'accord. accord non noonu noonu ngay togué mhm. genre mhm. ba appel jot. ba ba ur jot. nga genn. Mhm. bu nak da nga am sens bu sens bu nek cours le soir. non da ngay togué le soir. D'accord. Tay Ah, mu revenir foofu noonu mhm. mujj bi si booy booy toog xam fooy toog si douche nga dem toogi non toog si kaw de si kaw dambalo ba si douche ya douche cabinet douche cabinet foo nga dem toogi noo koy toogee parce que cabinet boo dugg am na ay escalier waaw escalier ngay toog man tey bu may ñëw xam nga jour may mën a dépôt mhm. maa nekk normalement maa nekk suuf laa nekk suuf si bi mhm. boo ñëwee ma si douche laa yow moo taal. waaw xet a nu mu mel. xet a duus na man xam man xam dama seexlu. nga koy nooyi. ma koy nooyi mais seex loolu neexul sax. Hmm. ñun ñu instant fekk rëbës tàng jër deux jours boo defee rëbës ay taab ngay am. ay taab ay taab. parce que da ngay dégg détenu yenn détenu yi. Hmm. bu ñu génnee. Hmm. da ngay la ay dama am toxoro. dama am ay taab. waaw nu mu demee noonu nga am ay taab am ay toxoro loolu nu ko joxe. vraiment bi la seex. humide taxaloo bi humidité environnement bi moo moo bindoo noonu gis na environnement bu demee ba ba ba baaxul rek. Hmm. di am yu dugg si. waaw da ngay am ay maladies. xanaa déggoo sànq mën na la si inhumé. Hmm. nit ñu ko dund quoi. malaise du dund loolu parce que dafa am benn honorable député bu ñuy wax Moustapha Cissé Lo. Mm-hmm. mës na def mm-hmm. Mm-hmm. sax foofu ay xaram sax sax du la waaw. xam rebeus ma xamal ben système. bu ñu xamee ne am mi ko ñëw ben autorité. dañuy rafetal di wàññi ay nit di wàññi ay nit comme ça tay bu dee bu dee chambre 4 day def ay 220 personnes 270 personnes bu ñu xamee ne mi ki day ñëw ben ben autorité day ñëw. chambre bi day def ay 120 vingt kon mos Moussa Cissé bu mi ñëw dafa fekk ñu roc ay nit. su fekkoon fofu non deux cent soixante kii doo sox loolu. c' loolu est ce que dégg Cheikh ma Abdou fu ma waxee. bu muy ñëw dafa fekk ñu rocc ay nit. kon bu ñëw fekk fa mu gën a fees. kon non damay yaakaar sax du ñibbi. amul réalité bi quoi. amul réalité bi. Mhm. d' accord euh, Baron. Mhm. dégg wax. waaw dégg lu doy waar. dund ko. waaw naa ko. noo ko dundee. man xam nga moom sax nee na dañ doon paquet